jaar jaar nit ku ñuul wax ci taarix jaar jaar nit ku ñuul dafay mbir muy doy waar ndax boo ko seetee te la jiitu nabi ba ca ndorte mbir ma la ca ëpp ngir ma def soppiku daldi wexalu ca jamonoy mam salomon ba fi tay sos xam ya nga xam ni noo mëñ yuy nasaraan yi tey loola waral buur yu mag amoon vitemane sule na kany ludemi niki nimra mawa yam dupe nimrod nga xam ni fii fi senaar la bay yi ko dem sos ngiru ra ca babilon nga mam nda woowe barbre ak buur fari misira ak kushma waa punt dupe sët biti wala ne sët biti nga xam ni mu fàllu ca réew ma sos ngir di limu benn ba fanweeri ngir yu xam ni tuuti la am ak boroxlu luy tollu ci juróom ñaari ngir loola lépp wara tollu ci ñetti junni at te ñoom seen xam-xam ya ca la xeliyam ak yafit ya nampe ba faf nott leen ñoom xeetu maam Cham waa ba fi tey wante xam fa maam jóge xam fi baay nekk tey dina tax doom gi giniku ba gis yoonu ëllëg xam fa mu joom fees koy awe wante ay gàcce ci ñu yi démb tax nga ruus jàng sa démb dina tax xeet wi mbalañ fangu ci kanamu waa Yam ak waa Yafit mu tax ma wax ni nañu jëma seet fu ñu jóge ba xam ko mu wër ñu ceng leer ñaañ ñu mën a xam fi ñu ne xam fu ñu jom te it li maku garwa wax ca merika mooy tegtal ja xet wu xamul sa cosaan ci jar jar ak aada ja ko laal day mel ni garab gu ni jonte ñaaki reen ginnaaw loolu li nu insa indiloon leer na ñaañ ndax xari léegi nag nanuy tàmbali waxtaan bi ci rahu ginaaw tufaan nga lu yàgg boobak léegi tollu na ci juróomi junni at dundoon gen góor gu baax te yaatu aman yar ak tegin yu mu jële ca baayam ba ñu da wax nahu nahu moome la yàllaay wa yàllaaf mu jële sa tufan nga lan moo di ak tufan laaj leen laaj leen ko seeni maamat naaxu moo fa yatoon gaal ga tabi ca biir géej tëm mook njabootam di ñaa ko gëm te topp yàlla ya laaf xooti géej ga ñu Teri Ararata, Jasini Aram, Nahoi mami xeet wi mu jur ñi mëñ ñetti xeet yi dëkkee dun bi tay nahu jur ñetti doom ki di Cham ke di Sem ak Yafit sunu maam di Cham ñëw Tara Sem jëm sànce réew wi samira ya fi reer yi yéeg bëj ganaar foofe mam cham wël bëtiko teelu si réew baayam fekk ko mu saay di ak day mu wéyee fa jale penku ginnaaw réew mam muy sa hiira di bere bu ra ma di leer ak tongoor saam maam cham dox ak njabootam ba teri sini taraa muy belum dexu penku ku rega ca ñulwa di dunub sini suufas ban ba ban bu ñuul ba foofay sanc ba maam am fa ñeenti doom ba réew ma màggee maam seedale leen réew ma sooga dellu ca kaw su fas kaw di bërëb yàllaay waa yàllaaf su fas taay ba dikkee masira mu sanc fa kuush toog berub sini tara put jala ca penkub deex ga kana wéy ba ca walaay masira ca pegub deexub digga mu sanc fa di Gog waa Sem ak seeni askan maam yaa si Nasiraana Saam kon mu taxawal li soo gay wey ànd ak Yàlla ca yeg kaw léegi nag nanu waxtaan ci wàllum bàkka sunu maam bàkka sunu maam bu tuddu Baka Baka mooy tur bu dëgg na ni wax ni tey makka kon léegi nag déglu leen tuuti na ñuy waxtaan be ci wàllum taarix sunu maam Baka bu tudd bakka lam leen bàyyel ñu topp ko kilif baka dimam dialona tshia sini aram tshia galag rahuga nga tere fofe ca arafat mu weyon andak wa yafit baka hunti sini ram nyun nga rufa ngir sed bak egba baka warfa jalasiba tundi muhenjo daro di fegug réew seem ak askanam baka am fa ab diir wàcc si sini tara di goxu réew yi askanu Sham ca dexu penku gu màgga di ñuul jaloon na ba di daro di peyi sufa saa su ndorong ya wëyale Kush baka dellu si sanc fa Tayba bakofa masira feke mu taxawu ko ba mu matal am mu jàll réewam put sos fa daraja di jàngu ba daldi tàmbale di neex ma di wër ci diggante gox yi réew ma topp dex ga di neemi ku xet wa waa couche dal fay dëgër ñuy yat Sénégal di tëm ca dex ga di dem aka dikk ca goxi réew ma ba ñu fa amee ab diir xewal ga sawan lu ma ya joli gëneel ya ba wan ca réew ma dundu ga yokk nit ña bari caxañ dugg fo ma bari ñu topp seeni bakkan daldi di fàtte tegtal ya ñu daggini ko dal di reer fàtte yàlla léegi nag nanu waxtaan ci taarixu saadara ba muy fa amee juróomi téeméeri at am ku ñuy wax dara nekk xeetu naxu ñu waxla la naw da wax ni niki maanaam am na buur bu mag bu ne ca kaw moo leen di sak sos na ay réew yu dax yi bu ngeen fatoo foofe ngeen di delu ca moom dundu fa dundu gu neex kon nag topp leen ni ma leen di wax dal di xatim ca xeer yàq aluwa yaa jox leen dal di fay bàyyeekoo fa sin dem tayba jale ba kanaan woy kenn gisatu ko waa réew ma topp ko ab diir fàtte ko mokk njàngalem nanu yàttal léegi nag ci wàllum tuur tuur yi ba ñu fanike ten Tengal ñu wet ci xol dal tàmbale gestu di seet aka wër yàlla ña yàpp ni yàlla yàllaaf mooy kii fi ne di amari ñeen ñi loola saay na ñooñe ñoo tàmbali sos seeni mbir ci kaw mangale ci tënk ñi yàlla mi nekk ci kaw moo wara gën leer ñépp noor ak nawet mooy raama di jant fi nun ñi na ko rajas ra nena jaret biddiw yay doomi raaya miira di hor manu dëppe xure weer wi di na ab raa ñu ñi ko ne mimra di saarata sufas kaw ya mamdi ya ram dupe kaw këb di suufas kaw ra mëngook ak dëkku waayam di bërëb jëwriñ mëngook xeetu wa yalaaf wala yi ram tàmbali soosu rajas ja di masal fenkub ra ca maraxma si di kuk lëndëmuk ñulu gu dëkk suufas ñu tuddoo doomi ra di saara ak saarata di jegena bra dupeku sira bahalati raya siwe basin baput banyeti juni at lujitu na binyu yoonu bagis yonu dundega bagini kuca mu doon yoonu wa ñu xàll ndem jàng fat na firnde nguur ga sosu fa réewu kush alja feeñ ani lam ani tak min taka ñoo jowu ca diggu asamaan di buntu ba ñooy rëdd xiblak penku ñooy masjid kush xamba sos nguur ga baka moo ràññee moo waral mu sanc fa walla géej ca penku dun ba di tefes ga bërëb weteel di réew saaba la ëpp ca Bolomoalaf tox dëkki ba saaba la des ca xeet wa jal Tayba wan nguur nga ràññewuñu ngir bot ma ngir may masal lan nga fa bàkka masalma fenca sini tara fas yene mandargaaw fa ñuul waa ji taay ba léegi nañu wax ci cosaanu kalante kalante al nilam al nitak min taka alif balam di fukki araf ak ñaar ci nasiraana ak najirana piir mooy kër ga yoo di boroom ñu ni piir yoo di boroom kër ga kër ye di fukk ak ñaar ñu tudde leen këri kaawura ñu wër nge leen ca peg ya biddiw ya méngoog nit gi ci suuf te dëkk ko Cadigba 5 takara ya di këw-këw ci waxinu Mamadi yaram ñoo méngoog kilifa kër ya di suufas kaw jant ti jant ti jantiw tim kër ya di leeral di dundal mook jigéenam di wér lii lay masal nguru burab sini taka ak jorinam ñooñu la tektalo ba sos ngir ga di waa Kush xam-xami kaw ya joli Guinée ya lax gu woon ca njëkk xitu piir gu jëkk ga feñat di petu pet di lax gu di tekki asamaan wasaasu norong ginnaaw seen jëf leen teg waa Kush boroxlu na ñu ca biir réew ma ñooña di waa Kush ka ndorong xeet yi yépp jaxasu mbey ma dox ca toli sini tara ba ca mbelum ñul wa ginnaaw suufas tufan ga tooyoon xepp gus na xepp la maam yooya tudde woon derga derga ne ca ñul wa de Sufacinitara, Burba de seeti Mam, Burba de sete Cham, de Wakush, Kush de Reurume, Sut, Satya Tudeko Tara, Sufas Rasarayi, Wasar, Wasar, Mom Tubab, Mom Tubabi, tuddee Osiris ñooy doomi Ra di niti leer sos na ñuy ak bërëb bi jàngu ak yat ak i bërëb dencukagu néew ya di mumi wante fàttu de gaawut woon nit dana dund ba fàttu ci téeméeri at ak lu tegte du gis ku fàttu ginaaw waa saa su ndorong ya jàpp ñu ñi meng ci biir alu put ci biir alu put ba ñu ña doon waa kushka ndorong ginaaw saa raa yaay doomi leeri raa waa yalaaf ñoo ña saxoon ca kilif tefu baka dëkke woon ca réew ya jit woon ca jamonoy xam-xami yu siiw ya ca taara am benn saara bu jal xeeri raaya ca dex ga ak maw ga lépp di ak déed jëm réewam misira ba mu agee tayba ca xóor wa mu fekk fa mbooloo mu takku te pastefu ñuy fas yéene ba faa di gëstu aka jàngale mbirra di xaar mosis di xam-xami ra yu jaxasoog yuy saa dara ñu ni ñu ni ki kanamu ni mën a diw bokk ca saara ñu ni waa saara la di wasar yaram dupe ko ozair wasar moomu fekkoon na fa kuy wéyal xam-xam sa dara toddu amani di kafi amoon amoon nefer nekkoon askanu waa yalaaf ngir topp kolore ak naxu ak yasaa dara bayi woon na fa tere bu ñuy wax lakku amani yaram naka luxmani ba ñuy bokke dég-dég dëkke Tayba taa ba di suufas ba taka di suufas kaw tabagi mooy pey réew ma ñu sos mooy jublu waay ba caaxuur yi ñu lu dex ga di xepp wasar am na benn rakkam fañoo di sëti couche nako sat di rake wasaar sat di ku yëmu ci jàngalem ba fa fiiru ko añane ko siiw ga mu daldi tàmbali di ko fexeel ba fa faat ko tiit ngir mucc ga daldi jàpp jëm di làqu kañu na sët di dawkat ba di ko jàpp neewa wasaar daga te ko xaj ko fukki xaj ak ñaar wër ca tabaga ak goxam wasaare naar ya bañ mu sab tong-tong jigéenam di sara dégg xabaar ba fas yéene sigil gorom nga des dib néew muy wër ca goxi tabaga di dajale xaju yaramu wasaar ma Sătărai, cea tabagă, birma matenă, cea gohu tanya, cea băci ganaru tabagă, mulakufă. Mom sirabdir dajale kadi yaram wasar masat wasarewon ca rew ma ginnaaw ba mu ko raayee ba noppi sulu ko wante mu firat jëf-jëf ju mel noonu